daa ko wax di da yàgg naa leen ko am taw taw fexe rek may xaas la ñu am ñoom ñu ngi nekk ci xas dégg xaas la ñu am xaas la ñu am bu wér wér wér yoo xam ne tawee ba ñee te ngeen dund ci fàggu yooyu bale xaas ngeen am waxuma taw feex na waaye yéen xaas ngeen am. allahu yàlla tabaaraka moom mi nga xamee ne barkel na wa taala te kawe ne ana naasima naka aji woy haataynil xasiidatayni yii ñaari xasiida ki ko woy jaxalahoo def na ko allahu yàlla tabaaraka yàlla mi nga barkel na wa taala te kawe busaaratan mbir mu muy mbégte li ahli badrin ñeel waa ahlu badar yépp alim yàlla nekk ci ñoom waa ahlu badar maa lépp loo xam ne yëliixu dana yell bihim ci ñoom mina salaati ci julli gu tukkee ci yàlla wa salaami ak sëlmal gu tukkee ci yàlla wa ridwaanu ak ngërëm lu tukkee ci yàlla ñëw ci ñoom wa surooran ba tey mbir ma mu nekk mbégte lahum ca ñoom abadan faw aa ah, mu ne yàlla mi nga xam ne ku barkeel la takkawe moo bind ca lahul manfoos ne man mi woy ñaari xasida yi ñaari xasida mooy yi ñu romb léegi mooy wa ma abaa haxoo ak beneen ba ca gannaawam mooy waa daxtu laj min qabli ñaari xasida yi sëñ Tuubaa nee ne man mi ko wéy yàlla bind na ca laxul foos ne man mi wéy ñaari xasida yi yàlla ci boppam def na ma mboolem waa ahlu badar yëpp dañ may bëggee maanaam waa ahlu badar dañuy bëgg ci man dañuy kontaan ci ci waxtu wu ne mu ñaanal waa ahlu badar ne ñoom ñëpp yàlla nekk ci seen kaw lépp loo xam ne yella na ci ñoom rek ah ci ay jullee ki sëlmal yàlla ko yàlla sotti seen kaw lépp lu yell ci ñoom rek ci ay xeeti ngërëm rek yàlla na ko yàlla sotti seen kaw ñoom waa alu badar waaye ki bind xasida gi yàlla ba tey ñaari xasida yi ki ko bind yàlla def na ko ba tey mu nekk koo xam ne dafay bégee waa alu badar xam nga bu tan mooy waa alu badar ñoo koy bégee waaye wa suróoran lahu moom moo leen di bégee moo tax mu ne kataba bind na allahu yàlla kataba bind na allahu yàlla tabaaraka moom yi xam ne barkeel na wa taala te kawe ne ana naasi ba nag aji way xaatay nil xasidatin yii ñaari xasida mooy yi ñu romb léegi ki ko wéy mooy sëñ Tuubaa la boppam jaaloo def na ko allahu yàlla tabaaraka moom mi nga xam ne wa taala te kawe bu nekk di mbégte li ahli badrin ñeel waa ahlu badar maanaam waa ahlu badar yëpp moom mi bind ñaari xasida dañ koy bégee parce que loolu yàllaa ko def te moo ko bind ci lawhul mahfuus mu ñaanal ahlu badar no lim waa ahlu badar maa lépp loo xam ne yëliiqu dana yell wa salaami ak sëlmal gu ci yàlla wa ridwaani ak ngërëm lu ci yàlla waaye yàlla def na ko moom ki bind ñaari xasida yi wa surooran mbir moom mu nekk mbégte lahum ñeel waa ahlu kon sëriñ bi waa ahlu badar ñu koy bigee moom it noonu lay bigee waa ahlu badar te loolu yàlla bind na ko ci loolu moo fas abadan faw nag wa sururan lahum abadan faw ba tey mu ne kataba bind na allahu yàlla tabaaraka moom mi nga xam ne barkeel na wa taala te kawe ne ana naasima naka aji tey haataynil qasidatayni yi ñaari qasida saara mujj na ahaba gën kaa sopp ila ahli badrin jëm ci waa ahlu badar alim ah, yàlla nekk ci waa ahlu badar ma lépp loo xam ne yëliqu dana yell biim ci ñoom mina salaati gu tukkee ci julli gu tukkee ci yàlla wasalaami ak sëlmal wari diwaani ak ngërëm mina anfusihim gu tukkee ko ci seen bopp atahirati gade aji laab al mutaharati gade guñ laabal walaaw te mbir moom yàlla wakiilun aji jàkkaarloo la aji seede la alaama ci lii ñuy wax ci tarjumaan ji ba tey mu indiwaat beneen kataba na yàlla meex na ku barkeel la te kawe bind na ca lawul moom ki way ñaari xaside yi mboolem kuy sopp waa ahlu badar moo la gën a sopp waa ahlu badar boo demee ci laxul manfuus boo amee kasfu mboolem ñu bëgg waa ahlu badar lu ñuy bëri bëri nee na man mi nga xam ne maa taalif ñaari xaside yi yàlla bind na ko ba nëppi ne man maa man maay ki nga xam ne mujj naa képp kuy am cofeel ci waa ahlu badar rek sama cofeel moo fi te kaw moo tax mu ne saara aaba ila ahli badrin te ahlu badar ñu mat a bëgg lañ ñu mat a bëgg na ki bind ñaari xaside yi nag mujj na gën kaa sopp jëm ci waa ahlu badar nga xam ne képp koo xam ne dangaa bëgg waa ahlu badar rek moom mi bind ñaari xasida yi moo la gën a sopp waa ahlu badar te ahlu badar na sop leen rek nit ki mën na cee texee mu ne yàlla nekk ci ñoom waa ahlu badar ñëpp lépp loo xam ne dana yell ci ñoom ci ay juli yàlla na leen ko yàlla sotti seen kaw ñoom ñëpp ci ay sëlmal yàlla na ko yàlla sot seen kaw ñoom ñëpp ci ay xeeti ngërëm ak i cant yàlla na ko yàlla sot seen kaw ñoom ñëpp te lépp rek mu bàyyi ko ci seen bakkan ya nga xam ne wala seen jëmm ya nga xam ne dafa laab yàlla laabal ko lii may ñaan yàlla mooy ci ay salaatu ak julli ak ngërëm yëpp tabaarakallahu mu sotti ko seen kaw ñoom waa alu badar tabaarakallahu lépp rek dafay bàyyi ko ci seen jëm yu laab ya nekk jëm yu ñu laabal sun borom sottiwaat ko seen kaw te yàlla seet na lii ma wax. kon lépp lu yàlla ci ñoom mina salaati wa salaam wa ridwaani min anfusi mu tukkee ko ci ay bakkan seen attahirati ya di aji laab al mutaharati ya ñu laabal lépp yàlla na ko sotti seen kaw rek walaahu te yàlla wakilu aji seedal alamaan xooli ci lii ñu wax kon yàlla seede na lii ñu wax ñun sëñ Tuubaa ne ñaari xasida yi liñ ci yàlla may mooy ñetti wax la benn bi dane moom mi bind ñaari xasida yi bu saaratan li ahli badrin nga xam ne waa ahlu badar yëpp dañ koy bégee beneen bi mooy daf leen di bégee wa suróoran lahum ñetteel bi mooy saara ahaba mboolem ñi bëgg waa ahlu badar ñëpp ki bind ñaari xasida yi moo ci gën a bëgg waa ahlu badar kon ñetti xeeti wax yi la ci wax bu saaratan waxi boppam la wa suróoran lahum waxi boppam la saara ahaba bata yëpp moom la ko yàlla defal leneen lépp dafay ñaanal waa ahlu badar mu tàmbali nag geneen xasida ndax tarjumaan ji boo gisee mu indi ko ñaari xasida yi ñu romb moom la moom la ci namu mooy wa waxaba lii ma abaaxaxoo ak gim tënkee ci gannaawam waa daxtu laj min xabli su ko defee nag dafay tàbbiwaat ci geneen xasida incha allahu taala bismillahi sos na ma sama wax ci tuddu turu buur bi arrahmaani buur bay xéewalaa kon ñépp ci àdduna arrahimi buur bay aji yërëm ku ko soob ci alaxira wasala yàlla na julli allahu yàlla ala sayidina ci kaw sunu sang bi muhammadin turam di muhammad wa alihi ak ñoñam ña sama bi ak saabaam yépp wasalamatu mu dolliku musal tasliman dollik musal wa kaana moom yàlla maa ngi koy ñaan dana dolle nekk li ñeel ma waliyan nekk kuy méngoo sama mbir wa nasiran ba tey nekk koo xam ne daf may dimbale bii ci mbaaxam ci kàttanam nee na maa ngi tàmbalee ci turu yàlla yàlla mi xéewlaa kon ñëpp ci àdduna te aji yërëm ku ko soob ci àllaaxira maa ngi ñaan yàlla mu julli ci yonent bi di sunu sang turam di Muhammad juli ci waa këram ak i saxaabaam yëpp te doole musal yonent sallallahu alayhi wasallam yàlla maa ngi koy ñaan mu ménge sama mbir mooy mu yore sama mbir ci saayir ak ci baatin waaye mu di ma dimbale ba tey ci saayir ak ci baatin te loolu sunu borom moo ko warlul mboolem ñi ko gëm mooy dimbale leen yor seeni mbir. inna waliyallahu la si nasala alkitab wa huwa yatawalla saalihiina kon gis ko allah waliyu la na amoon moo kon nag dama koy ñaan mu dolli ma koo defal muy féetoo féetoo ak man di ma méng samay mbir waaye di ma dimbale ci lépp lu may bëgg dégg nga lépp loo xam ne maa ngi koy ragal mu notal ma ko lépp lu may bëgg mu defal ma ko kon wakaana maa ngi koy ñaan ba doole ba dana doole nekkal nga moom yàlla lii ñeel ma waliyan nekk kuy méngoo sama mbir wana sira nekk koo xam ne aji dimbal la ma bii ci kàttanam ci mbaaxam léegi xasida gi mi ngi ko tënkee wa wahaba li qawli bihi llahu taala tabaraka wa taala kaana lii nga xamee ne kon dafa mel ni rek max naa wax ji mu wax suñu borom wa kaana lii waliyan wa nasiran bii dafa mel ni rek moom la tënkee waat xasida gi la ci ñaan yàlla suñu borom nekkal ko waaye dana ci sant yàlla ci xéwal yu ko defal xasida gi lépp da ko jëmale sax mën nga ne ci sant dégg nga lépp da jëmale ci sant lu ko yàlla defal kon lim tënkee xasida gi moom mooy wa waxaba li qawli bii laahu tabaaraka wa taala kaana lii kon bokk na ci xasit yi nga xam ne yi ñu rombaale bokk na ci yi ci gën a gudd tuuti dontu guddut nga soo koy firi nag pour nga mën koo dégg da nga koy firi firim ñaan fek sëñ mom ku ne xam na ne ñaanut lépp rek dafay yor melokaano sant waaye soo ko bëgg a dégg koy firi firim ñaan wa waxaba maa koy ñaan moom yàlla ba may lii ñal xawli sama wax bii ci moom allahu yàlla moom mi nga xamee ne tabaaraka barke na wa taala te kawe. kaana lii kaana mu doole nekk lii ñaan ma. mu ne wax ji ma ko wax kaana lii maanaam yàlla daal na may nekkal rek maa ngi koy ñaan nag mu may ma loolee ma wax ko ci moom maa ngi koy ñaan mu dolli maa may di ma nekkal ci waxtu ne sama wax ji ma wax daal ci moom ci àqam ngir tagg ko moom mi ku barkeel la kawe mooy wax jëma ko wax mu dollee maa nekal daal maa koy ñaan mu may ma ko nangul ma ko moo tax mu ne wax ba maa ngi koy ñaan ba dana may lii ñel ma xawli sama wax bi ci mom allahu moom yàlla tabaaraka moom mi nga xam ne barkeel na wa te kawe ana wax ja mooy kaana mu dollee nekkal lii ñel ma wax jooju daal maa ngi ñaan yàlla bu mu dëj mukk suñu diggante ah, lay ndeysaan wasaltu egg naa lillaay ca yàlla mahal mu taay ànd ko ku ñu topp ka te yón te mooy yónent bi bila xawa iqa ci lu genn aji gàllankoor wala xutaaxe du caagi ne genn aji dogaale mu ne yegg naa ci yàlla kenn doxul seen diggante ànd ak bi di mutaa mooy man yuti rasula faqad ataha allaha sunu borom subhanahu wa taala dane képp ku topp yonent bi topp na ma kon bokk nañu turu yonent mooy al mutaa mooy ko xam ne dañ koo topp noonu itam sëñ bi noonu la nekkee mutaaxan boo jàng xasir ni midaadi da nga dégg mu ne faa faa isan bi wisaal yi boo dem ba ci boori bu jënteel ga nee na mu taaxaan la faa isan bi wisaal yi nga xam ne jokk gi mu ci yonent bi kenn doxul seen diggante waaye mom sëriñ bi mu taaxaan la li yonent bi nekkee mu taaxaan ku ko top jub waaye in tuuti yow tax doo sëriñ bi itam noonu la nekkee mu taaxaan ku ko topp jub ndax ku jub la ba nëppi la imaam bu Buusiri doon wax rek nee na ku texe ku ko topp texe ku texe di ku ko topp texee di te sëñ Tuubaa nag mostu tegg yoonu siraatal mustaqim moo tax ku ko topp itam foofu rek lay teg xam nga ni ñuy gisee ci saayir nit ñi di bëri ay gàllankoor nit ñi di leen eh, dogale di leen agressé noonu la amee ci yoonu yàlla dégg nga moo tax biri suñu borom yëpp misaal yi dañ la koy jox ci àddina nga man koo xam comprendre ko ni ngay demee ci àll bi ñi agressé la nangu sa xaalis wala benn ñi ray la wala ñëw fekk la sa kër ngay nelaw ñi dajji bunt yi yooyu yëpp nga xam ne day tegtale ne nit kat nit ngi dund ci ay gàllankoor ak métit yoonu yàlla itam ba noonu la amee léeg nga dox jëm ci yàlla ëdduna kattanu la poñe la bànneex saytaane bakkan xëy yooyu yëpp ñëw kattanu la dugaale leen di la fitnaal ba yàqal la sax yow fa nga doon jëm gàllankoor la moo tax sëñ bi man damaa yeggee ci yàlla ànd ak yonent bi te amul lu ma gàllankoor amul lu ma dogaale. comme ni nga gisee ci saayir nit nit gàllankoor moromam yàq dundam wala di ko kattanu ngir agressé ko ngir xaalisam ba wala otom ba yooyu yëpp noonu laa amee ci yoon yàlla. moo tax ma ne wasaltu man nag yegg naa lilay laay ci yàlla maal mu tay ànd ko ku ñu topp ko di yónent bi te bila xawaayiq ci lu genn aji gàllankoor wala xutaa wala genn aji dogaale. amul kenn koo xam ne dogaale na wala amul loo xam ne daf maa gàllankoor déedéet te yegg naa ci yàlla. al xutaay mooy ñi nga xam ne dañuy lu mel ni sàcc yi da koy dégg ah, am na sàcc yoo xam ne dañ lay kar si yoon nga ñëw tabaarakalaaw ñu jël li nga yor buñ ne xaati tariq rek mooy al lissu al lisu alxutaaw nag jamxu kon yàlla yàlla musal ci kon sëñ bi daal nee na yegg naa ci yàlla te yiy gàllankoor nit ki digganteem ak boroom sun boroom musal na mi ci. wasala eggali na ci man wasala egg egsi na lii ci man jasaa urab bi payooruk sama borom wa jasaa sukuri payooruk sama cant minallahi mi ngi tukkee ci yàlla. wa un gisaata moom yàlla teewalees na wax di sama dëxal bi ma dëxaloon mu ne a payorog sama borom kat yegsi na ci man sant gi may sant sama borom nag pay gam pay ga ma ciy jëlee nee na baykul ci benn minute ci yàlla bayko ko te loolu mooy dëgg suñ borom boo ko santee du dañ ji la dollil te lam lay dollil ci moom lay bayko ko waaye nee na nag yàlla lam ma digoon dëxal ma ko mat na sëkk matal na ko mooy teew na ci man kon wasale egsi na lii ci man jeesa urabi tawa jeesa ah dañoo xas a xam si gi wàcce saa sukri payoor sama cant mi ne laa mi ngi tukkee ci yàlla te gis nga ne xasida yëpp tabaarakallaa cant la waaye léegi lii yëpp su ko su ko yàlla di fay kenn xamu nu ñu toll te xasida yëpp cant la mu ne wàcce saa sukri mi ne laay payoor sama cant mi ngi tukkee ci yàlla te wa saa teewalees na wax di sama dig lama yàlla digoon daal jox na ma ko. xadaani ya gindil na ma boppam allahu yàlla bilaa idlaali ci lurut genn aji réerale waqaada womatal na lii jox ma al ansama la gën a màgg fii la xalaali ci yu dagan yi yàllaa ma gindil boppam ma teel a yeewu lool xam yàlla te itam amul kenn ku ma mën a réeral nit mantu réer ba ñëw réeral ma nit mantu pexe ba réeral ma sëñ Tuubaa nee kenn mënu maa réeral bilaa idlaali <laughs> disaan hadaani al haadi fala adilu wa an sabilillahi la uddalu kenn mënuma maa ñi naa mu ne waaye ku ma topp itam doo réer aka a noppale waaw mooy mooy mooy ki nga xam ne diggante ak borom lépp dafa set kon yàlla gindi na ma te kenn mënatu ma réeral te kenn du ma réeral waaye mboolem yu dagan yi yàlla daganal woomatal na ma ci la gën a màgg loolu waxoon naa la su ko waxee rek mooy lépp lum soxla du ci am coona loolu ñuy tuddee tawfiix mooy bëgg-bëgg sëñ Tuubaa ci yu dagan yi ndax yàllaa ko defal siru ismulaay ansam nga xam na lépp lu muy bëgg ci yu dagan rek loolee moo def ñokket ñëw teew ci kanam sëñ Tuubaa su fekkee soxla na ko waaye du digal kenn mu di ko wuti wala mu di ko wuti lil boppam waxaada lil ansama fil xalaali waxaada womat na lii jox ma fil xalaali ci yu dagan yi al ansama la gën a màgg la la la la womat jox ma ci waaw mboolem ñi ngay dégg ñu ne yu dagan la rek la ca gën a màgg yàlla womat na ko jox ma ko waxaada lil ansama waxaada womat na li jox ma al ansama la gën a màgg fil xalaal ci yu yi yi ngay dégg ñu ne dafa dagan yépp sunu borom la ca gën a màgg la ma jox. baraka barkeelal na lii ñeel ma fii kulli ci lépp loo xam ne yu biix dana ko daganal lii ñeel ma. muhallilun yàlla muy aji yombal ji. saaxa koog màng na alqabiix aji bon li xayri mu jëm ci furut man. mu ne lépp lu yàlla daganal ci man rek daf ma caa defal barke lépp loo xam ne sunu borom da koo daganal ci man rek yàlla ci boppam moo ci tàbbalal boppam barke moom mi xam ne mu xallal la mu xallalu sëy u mooy alyasiru lu yomb rek mooy yàlla mi nga xam ne daal mooy kiy yombal mbir yi mooy kiy jàppandal mbir yi yàlla moomee ci boppam kat tabaarakallaahu lépp lu ma daganal rek moo ci def barke. mu xallil dana firi ba tey rek moy xalal rek bu firi lu dagan waaye mooy aji daganal ji rek nga xam ne lépp lu dagan yàlla ko daganal firi moom nag mooy gën a jub waaye bu mu xalal moom mooy al yasir mu xallil bii comme ismu faayil ci la yow mu xallil mënees na ko firi rek mooy loo xam ne lu dagan la maanaam mooy aji daganal ji ci gàttal mu xallil dégg nga da nga jàng ci xadis ba. wa fil xadiisi sarif laxanna laahu almuxallilu wal muxallala lahu suñ ko ko almuxallal mooy almakaan dañ ko firee makaan almuxallal dañ ko firee kasra hululi naasa fii foo xam ne nit ñi dañ fa faral di wàcc rek di fa daje waaw ko wax barab danañ ko wax kasura waro dégg nga waroo da naasa barab boo xam ne daal nit ñi dañ fay faral di ñëw lu bari bari di fa daje ko firee ba tey Eh, yu durisul maadata xeeti matière yi borom xam yi nga xam ne dañ koo xam wa yu xaawilu maarifataha nasiriha wa xasaisiha xam ne dañuy sàkkoo xam mboolem xeeti cosaan yi ak seeni jagle waaye muhallil bi moom luy fi rek mooy lu dagan rek yàlla moom nga xam ne nag lépp lu bon rek da màngu na ko mu jëm ci furut man kon baraka barke la li ñeen ma fii kulima ci lépp loo xam ne yu biex dana dagan lii ci man lu dagan ci man rek yàlla def na ci barke muhallilun yàlla muy aji daganal ji moom lépp lu mu daganal ci man rek def na ci barke waaye saxa xam màng na li xëy mu jëm ci furun man alxabi aji bon loolu mooy lu daganut rek lu daganut xam nga bu ñu la yóbbee safaana mooy xabiix lu dagan moom ku ne xam na ko mais lu daganut moom xabiix lay tudd moy lu bon kon lu dagan li dal yàlla defal na ma ci barke waaye lépp lu bon yàlla màng na ko saa xam màng na alxabi aji bon li xëy mu jëm ci furun man. laxoo ñeel na ko sama cant bilaa kufraani ci sul njekk wakaana te nekk na lii ñeel ma bil xilli ci xilli gi wal jiiraani ak dëkkandoor yi yàlla danaa ko sant sant gu dul dëñ sant xam ne foo ma fekk rek soo ko yëgee ak soo ko yëgut soo ko xamee ak soo ko xamut dama koy def yàlla te kufraan du ci am kufraan mooy sunu borom tabaaraka nga xam ne yàlla la bind benn ci anam bu gën a rafet ñaar li ngay lekk li ngay sol yépp ci mbaaxam la ku ne xam na ko su ko defee nag nga ne mottu bal sax léeg-léeg da ngay sant keneen koo xam ne xéwal gu bay ko ci moom te yoo xam ngi ne lii kat tabaarakallahu ci yàlla rek la bay ko nga wan gannaaw yàlla bañ koo sant bal sax da ngay gis xam ne day soppi xéwal gi la ko yàlla jox te ba ko yàlla di jox ngir mu sante ko ko ci jaamu ko mais mu jël xéwal ga def ko ngàndaay di ci xeex nit wala mu ci moo yàlla mu ne yàlla nag dama koy sant te du ma sul njekk ama kenn ku nekk yàlla defal na la njekk jullit nga ak yéefér nga la njëkk jullit nga ak yéefér lépp yàlla moo la ko defal mais yow nag soo wëlbatee xéwal gi di ci mooy yàlla kooku da ngaa suul jëf da ngaa suul njëkk moo dañuy firee baat bi maanaam suul njekk yàlla jox la xéwal doo ko sant ci cër doo ko sant ci xool mais sa xool bi ci bopp ak sa cër yëpp mooy da koy defee rek la la yàlla defal sa jëm jëpp effort yëpp moom moo yàlla ci nga ko jeexal yàlla nekk la ma ci xilli xilli mooy foo xam ne nit ki dafa sax dégg nga aljiraan moom xam nañ ko mooy ay dëkkloor fi nga dëkk ñi nga dëkk ñi nga dëkk jàng ci alquran la uqsimu bi haazal baladi wa anta hilun bu hil bu ñu hillu rek mooy al muqim fi makaan ni koo xam ne dafa sax tabaarakallaahu ci ab barab barab boobu fa mu nekk mën naa nekk hilam su fekkee jaamu ko te yàlla la waaye maa jaawasal hurumu min ardi makka bu ñu ne ca makka moom mooy makka kaaba ga ak la ko wër yëpp nga xam ne hilli ji moo tax ñi fob dëkk bi yëpp. wormaal ko ba nga xam ne ter nañ fa xeeti mooy yàlla yépp dañ ko faa ter waaye bu dee xilli ci sëñ Tuubaa mooy fu mu nekk sax fa xilli ci moom dëkkandoor na xam nañ ko mooy ñi nga xam ne ñoo dëkk ak moom kon sëñ bi yàlla mayoon na ko dëkkandoor yu baax moo ta mu ne loxo ñeel na ko moom yàlla su ko réer samay cant bi laa kufraan ci lu dul njekk wakkaana li ñaan bi ci samay xij yi mooy fu ma nekk sax fa yàlla nekkal na ma fi lu ma bëgg mu fekk ma defal ma ko wala jiiraane ak samay dëkkandoor yàlla nekkal na ma ci yaskuruhu dana ko sant baki alquran kon sëñ bi lépp lu muy def ak yàlla rek ci alxuraan la koy jaare te nee na cant lu muy métti métti nag man du mu ci am coona te kenn du mu ci yedd yeddaange du mu ca fekk. xaada womatal na lii ñal ma alla saati yu neex yi alla saati bànneex yu neex yi fil xibaad ci biit jaamu gi ma koy jaamu. woman yërum képp kuy sàkku madarati sama lor abada xala ges ko. mu ne gi may jaamu yàlla dama dem ba mooma dàqal lurut moom boo léegi ñun ki am na ala xalaawatul xibaada lu ñuy tuddee lekk dootul neex ci moom lu ñuy tuddee xeeti bànneex yi am ci na yëpp moom dootul neex ci moom lenn rek moo koy ci reer duñ koy bëgg am na nit ñoo xam ne dañuy tax dañuy toog di xaar xañ bi ak reer bi waaye ñoom ci boppam reer reer moo leen di xaar ak xañ waaye ñom duñ xaar xañ ak ak ak reer ba da <laughs> lu naqaree comprendre la waaye boo sóoboo ci yoon rek ngay xam ne sunu borom may na ku waye waaye nag feeg yaa ngi ne rek yaa sa ji doo xam lu xew de Euh, lay nit nit ki dana toll ci jaamu yàlla foo xam ne dara dootul neex ci moom ci àddina yàlla rek kay neex ci moom tudd yàlla rek kay neex ci moom nit dana tudd yàlla ba leneen du neex ci moom lu dul tudd yàlla nit dana fonk julli ci yonent ba ba dara du neex ci moom lu dul lu dul julli ci yonent sallallahu alayhi wasallam ndax bànneex yooyu yëpp ñoo gën a féete kaw bànneex yi yëpp booy xool dalay delloo ci lëndëm rek bànneex àddina yi lekk yi yëpp ci lëndëm la lay delloo mais loolu nag moom leer la xam nga bànneex boo xam ne leer la bokk bànneex boo xam ne lëndëm la bànneexu leer na bànneexu jaam yàlla soo xasee ñam moo lay gënal nag baneex yii nag ñu xam ci àdduna moo tax mu ne képp koo xam ne dafay sàkku ngir bëgg maa lor sunu boro moo lay alagal boppam xaara wamata na lii ñal ma àlla saati bànneex yu neex fil xibaade ci biir jaamu gi ma koy jaamu waman yarum képp koo xam ne dana sàkku madarati sama lor abada xalages ko kon daal jaamu yi may jaamu yàlla yàlla wamatal na ma ci lu ñuy tuddee bànneex mooy bànneex rek la ci yëg dégg nga waaye du ci yëg leneen nga xam ne yu neex rek ba nga xam ne dootul bëggati yi ngay ngeen yi bëgg mooy ceeb yeeg maaf yeeg dégg nga waaye képp kuy sàkku rek ngeen ñëw bëgg ma lor sunu borom moo lay njëkk a xalagal mooy ba muy jooy ci xol bu kaaw rek sang yu baax ya tabki aradi alim ka samawaati eh, ba bay tegu rek mu ne ridwaana man fii xaabu bil halawaati bil halawaati halawaat mooy gaa yi fi jaaroon léegi nag yàlla mi ngi leen di teral ci seen biit bàmmeel ya eh, tabarakallahu waajaxanii jublu na ma ilaa jinaanihi ba keroog may dugg aljanam ja almuhin yàlla muy aji dimbale ji bi loo xam ne yesuru ni daf may bégloo wayetrudu te dana dàkku allaxin ke ñu rëbb di iblis yàlla mi tudd muhin ba keroog ma naan porox ci biir aljanam ja yalla mi tudd muhin mooy aji dimbale képp ku am dimbal nee na yàlla moo moo ma jublu su doon melokaana nga dem melokaano yàlla wi tudd muhin léegi daf ma jublu léegi nag ku ñuy wax muhin su jubloo sëñ Tuubaa lan la koy defal mooy da koy dimbale ba keñ ba keroog muy dugal janaam ja moo tax ne yàlla mi tudd muhin nag jublu na ma ba keroog may dugal janaam ji jublu goo xam ne daf may bégloo ndax yàlla ku muy dimbale faaw ngay bég ndax booy xool aduna fii rek loo mënal nit ki di ko defal dafay bég ci yow te fekk moom lot na ci mën ko nga koy defal dafay bég kon sëñ Tuubaa su ko yàlla di dimbale jublu ko mooy da koy bégloo dégg nga waaye mu ne ki nga xam ne mooy ki nga xam ne ku jafe mucc la muy iblis yàlla daf ma koy dàkkul moom di ma ko dàqal mu may sëri lam yan fu nuy jubluun ma xadabun lenn luy mer aw dalaalu wala réer wala saqan du caagi ne texee di wan xaadu wamatu na lii ñëw ci man alxalaalu mboolem yu dagan yi yàlla musal na ma duma mer mukk musal na ma duma réer mukk musal na ma duma texee di mer mosul maa jublu ma def ko réer mosul maa jublu mu nekk ci man texee di mosul maa jublu te mboolem yu dagan yëpp womatu nañ womatu coobru ñëw ci man Serigne Touba kon lépp loo fi gis rek tabaarakallaahu xamal ne Serigne bee. Mhm. yesoonu ni dana ma protéger dana ma ñoŋal yesoonu yesoonu ni dana ma ñoŋal man yàlla mi nga xam ne sans saxaar dàq na addajaala fenaakoon ba li xëyri nax ya mu jëm ci fu du sama wàll dégg nga mu ne sunu borom mi nga xam ne moo dàq dajjal dajjal mooy fenaakoon rek dañ ko firee itam masiwu dajjal waaye sëñ bu ne dajjal rek mooy fenaakoon mooy noonam rek la ci ndax noon yi ko yóbbuwoon ci géej gi yëpp tabaarakallaahu ci condition fen rek ci lañ sukkandiku ba yóbbu ko ci géej ga waaye bañ sukkandikoo ci seen fen yi moom it li ko indiwaat Sénégal mooy dëgg gi mu nekkoon rek wa li lii am si gam waxoon ca wala xëdd këram naa ba maa xat saara burhana léeg-léeg ñi lay tuumaal dara wallaay gëmal yàlla rek yàlla fi ne de te loolu nag lu naqaree xam la dafa am baat yoo xam ne soo ko waxee ki gëmul yàlla ko amul tawhid danaan lii nu mën a nekkee waaye fekk yàlla fi rek yàlla rek moo fi nekk wallaay boo ko gëmee te muy dëgg wallaay bis dana ñëw ba nga xam ne yàlla rek yàlla gis nga nit mën naa pexe pexe mu ne ba nga defee ni kii kanaa yàlla dafa ànd ak moom nangam ak nangam lu ne waaye yow boo saxee ci dëgg rek wallaay laa sim bis dana ñëw kookee dana toro kott ci sa ron tax mu yesoo nu nii dana ma protéger man yàlla mi nga xam ne sans saxa dàq na adda jala fenaakoon ba li xayri nax ya mu jëm ci furu sama walla wa jala te daw na maali ci li nga xam ne ñeel na ma mooy li ma moom yëpp mu ne sunu borom mi ma dàqal fenkat ba daal mu daw jëm ci feneen fu bokk sama walla ba fenkat bu ci boppam dafa mujj wëndeelu daw mooy koo xam ne dafa daw wan la gannaaw Sëñ Tuubaa nee na waxuma daw rek waaye lépp loo xam ne man Sëriñ Tuubaa maa ko moom rek da koy daw lépp lu ma moom rek da koy daw ndax nit léeg-léeg mu lay daw waaye du daw loo moom kat du daw sa du daw sa njaboot nangam waaye ñoom dañoo mujj nag di daw bu ñu nee jaalal xawmu fil harbi faroo suma karoo ñi nga xam ne dañuy àkk di daw te taxaw kon sëñ bi ni ko yàlla musalee ci ay noonam noonu la ko musalee ba ci lépp loo xam ne moo ko moom moom sëriñ bi rek noonam yi mënuñ ci dara. moo tax mu ne yesu ni ma ñoŋal euh, ñoŋal mooy protéger ba nga xam ne dara du la mën a lor man yàlla mi nga xam ne sax sax dàq na dàq mooy sëril addajaala fenaakoon ba ñoom ñëpp dàq na leen dégg nga kan xam ne fenaakoon la li xëyri nax yooyu mu jëm ci fu du daw na maali ci li nga xam ne ñeel na ma bàyyee na leeralal na lii ñeel ma tab na man leerulu koo xam ne laa yaxfaa nëbbuut ali ci moom say un dara xaafisi yàlla muy aji wattu sama bil axfa ca biir la gën a nëbbu nee na leeralal na ma leeralu koo xam ne moom dara umput ko waxoon naa la ko saa bu waxee lii rek bokkut ak man Ibrahima Seck mu la leeralal dara ndax su ma la leeralee ay wax rek la ma ca xamul moo ëpp fuuf waxuma la sax la ma ca fàtte waaye sunu borom moom dara umput ko moom gis na lépp kooke mooy leeralal sëriñ bi te yàlla nag moom du fàtte du juum. te doomu aadama boo gis muy jàngale mbaa muy leeral mbir rek mën na caa fàtte dara loolu lay tegtale ak matadeem waaye yàlla nag moom lépp dafa leer ci moom moo tax bi ne yàlla moom nag moo ma leeralal lañ ciy dégg nag mooy kon nag sëñ bi nag la ko yàlla leeralal moom bokkut ak li nga xamee ne moom mbindeef moo ko leeralal wala bokkut ak li mbindeef di leeralante seen biir. moo tax mu ne leeralal na ma leeralu koo xam ne dara umput ko dara moom mi nga xamee ne moo ma wëttu ca biit la gën a nëbb nga xam ne boo demee ca la gën a nëbb la kenn xamut fa kenn jotiwut foofu la sunu borom làq Serigne Touba nëbbu ko fa sàmm ko fa wëttu ko fa moo tax sëñ bi kon kenn mënu koo lor moo tax mu ne bay na leer la na lii ñel ma tab yi ne man leerlu koo xam ne laa yax eh, di di nëbbu aali sey moom say un dara xaafi ci yàlla muy aji wëttu ca ma yàlla muy aji wëttu sama bii la afaa ca la gën a nëbbu la gën a nëbbu la mbindeef jotewut ci bëti xol ak bëti saahir mbindeef mënu caa teg bëtam foofee la sunu borom làq sëñ Touba huwa moom yàlla ci mooy ki nga xamee ne wasaltu egg naa lahoo ci moom bil mu taay ànd ko ku ñu topp ka wasaani ñoŋalal na ma boppam xanil xutaaxe walis way dogaale ña yàlla mooy ki nga xam ne yegg naa ci moom ba sës rëkk kenn doxul suñu diggante ànd ak bii di al mu taa def ne rëkk ci yàlla rek ma sës ci kawam wala ci wasaltu bil mu taaxe lahoo mooy yonent bi bi mu yeggee ci yàlla man it maa kon suma diggante sama borom su am ku ca dox kooku yonent bi rek lay doon sunu borom nag protéger na ma ci yoon wi ma jaaroon ànd yonet yonent ba ci yàlla ba lépp loo xam ne dafay dog nit ki ba tax du yegg ci yàlla sunu borom musal na ma ca. kon huwa moom yàlla àll ci mooy ki nga xam ne wasaltu egg naa loo moom bil mu temps yi ko ku ñu topp ko di bi wasaane ni ñogalal na ma boppam anil ko temps yi walis way dogaale ña lépp luy dog dog nit ki bu doxee jëm ci yàlla moo xam mbir lay doon ndax mën naa nekk mbir mën naa nekk nit mën naa nekk mbir mën naa nekk maa wala mu nekk man ndax nit ki bu doxee jem ci yàlla ñaar yooyu rek ñoo ko mën a gàllankoor maa wala mu nekk man buñ na maa nag xeeti bànneex ak ëddu nag seytaan ak yëpp dañ ciy dugg xeeti mbindeef yëpp ndax léeg-léeg sax euh, nit ki ndeysaan mu nekk ab sëriñ taalibe yi dox digganteem ak boromam <laughs> ndeysaan yàlla ni ci yàlla musal wasaanani anil qutaan qaada womat na ilayya jëmee ci man rabbi sama borom atay sira ak jàppandal wakaana te nekkal na lii ñeel ma waaye saraata mu yombalal ma alxasira lépp luy aji jafe mu ne a sunu borom womatal na ma taysiir taysiir moom moom ngay dégg léeg-léeg murit ñi ne yàlla yàlla defal ñu taysiir ak tawfiix mooy ndi koo xam lépp ma jàppandi lu mu bëgg du jafe waaw mu ne yàlla defal na ma taysiir googu nag womatal na moom moom yi nga xam ne mooy sama borom baat bu ñuy tuddee taysiir ni ngay ni ngay dégg ñu ne tawfiix noonu la amee taysiir sëñ wahab lana rusda wa tawfiqa yàllaaw warul lana kulla si saxbin wa si xaranin wa isran kulla si taxsir yàllaaw gis nga ko yaan yàlla defal ñu taysir te lool yëpp suñ tubaa suñ borom defal na ko ko fii mu ne suñ borom wamatal na ma taysir euh, yasir lahum bi la si taxansara fa kullu ma yasartoo taysara ndax léegi leg sax da koy ñaanal xeetu yonent bi waxuma la jëmmam ji waaye xeetu yonent bi yëpp tabaaraka da leen koy ñaaral kon yàlla wamatal na ma taysir ba noppi nekal na ma ba noppi lépp lu doon jafe rek yombalal na ma ko xaada womat na idée jëmee ci man rabbi sama borom a taysira taysir kon sëñ bi jëmi taysir bal ki ko topp rek taysir danga ko am wakaana te nekkal na li ñal ci lépp lu may bëgg waaye sa yombalal na ma alxasira lépp luy aji jafe lépp luy aji jafe rek dégg nga suñu borom musal na ma ci ba tey lam yan xuni jubluhun ma kufurun weddi yàlla ak i yi wala kufraanu du caagin weddi yàlla ci ak xamam xende sa fa mboolem ñaar yooyu wala xusraanu du caagin perta mu ne jublu ma lu ñuy tuddee kufru kufru mooy ku weddi yàlla gëmul yàlla rek kooku la ñuy tuddee kufru soo weddi yàlla rek gëmoo yàlla xéewalam yi naka noonu kasaalika doo ko ci sant rek kooku kufru nga tudd waaye kufraan nag bu ñaal kufraanu bilaay mooy inkaar wujoodi juhuduhu yow yàlla muy aji bind ji ci boppam danga ko weddi yemoo ci da ngay weddi ak xamam kon kufraan moo gën a xóot moo gën a xóot kufru waaw kufru moom mën naa ne koo xam ne dafa weddi xéwal yàlla rek ci bañ koo sant ci xéwal yi ko yàlla defal yëpp mu di ko soppandikoo di di ci mooy yàlla mais bu ñu kufraan nag bu ñu juhudul xaaliq wa inkaaru wujudihi wa inkaaru mooy kullu qudratin aw sultatu ilahiya nga xam ne yow lépp yàlla da nga koo da nga koo weddi weddi nga bind gi bind binde fi beneen bi mooy xam gi nga xamee ne moom yàlla da koo am te ku ne war koo gëm te moom kenn amalu ko te moo amal lépp da ko weddi moo tax nga dégg ñaan laa takfur bi ni amillaahi laa tacaat mooy bi luy di xéwal yàlla mooy bu ko weddi dégg nga buñ ne kafara bi wujjoodil xaaliq mooy nafa wujjoodoo walam yoomin euh, mooy koo xam ne am gi yàlla am da koo dàq da koo weddi nangul koo gëm yàlla nañ ci yàlla kooku nag dana nekk rek kaana kaafira nekk ku weddi yàlla moo tax sëñ bi nag nee ne lu ñuy tuddee kufru mooy weddi suñu borom bañ koo gëm wala mu weddi ak xamam yooyu yëpp mosul maa jublu lu ñuy tuddee perte ba te yàlla mosal na ma ci. moo tax mu ne lam yan fu ñuy jubluun ma yàlla wala kufraanu du caagi ne may weddi ak xamam weddi yàlla ci xéewal yi ma defal jubluut ma weddi yàlla ci xam gi am jubluun ma di max naa ñaar benn mosul ma cee hende sawihima fa mboolem ñaar yooyu wala xusraanu du caagi ni perta yii benn mosuma ci jublu wala ngeen ne hende sawihima fa mboolem boroom ñaar ñoñu wala xusraanu du caagi ni perta ndax ñam ko séqutoog nasaraan yi la te loolu dafa nekkoon ci ñoom moo tax hende sawihima dafay dellu ci nasaraan ya ndax ñoom la kufru dal ak kufraan wéet nañ yàlla ci xéwal yi wéet nañ yàlla ci xam gi lépp moo tax na mu ne hende sawihima fa mboolem boroomi ñaar yooyu nga xam ne ñaar yooyu ña nga xam ne dafa nekk ci ñoom muy kufrun a kufraan ñooñu jubluwun ma. ñaar yi daluñ ma ba ma nekkee ca ñooñee nga xam ne ñoom ñaar daf leen dal man loolu dalun ma dañuy tuddee xusraan ba tey jubluwun ma. lam yan fu ma wala sa yan fu duma tudduma jublu xuróor ak waru. aw makurun wala lenn luy pexe aw xisun wala kooj. wa yan fu nuy tëdduma jublu alburóor ak mbaax. mu ne jubluwul ma du ma jublu ma ko mosul maa jublu te ma jublu ma ko lan mooy xuróor ak woro wala ak pexe wala xisun mooy loo xam ne mu ngi mel ni dëgg ak neen rek luñ jaxase loo xam ne daal mënuñee bokk loo xam ne daal nit ki masalan su gëmee yàlla am na lum ko ci gëm yàlla ga na lum ca rax wala muy sant yàlla am na lam ca lépp lu muy def ngir yàlla rek am na lum ca rax loolu mooy xisu mu ne man nag woru ñett yi jubluwul ma te maa jublu muy pexe lépp loo xam ne xëyti pexe la mu nekk ci man wala muy tukkee ci mbindeef yi wala muy tukkee saa borom yàlla mosul na ma ci. wala lépp loo xam ne dafa nekk ci man mu mu nekk loo xam ne dafa dama ko dafa dox sama diggante saa borom ma di ci rax ca bokkul muy xisun di ci kooj loolu jubluwul ma li ma jublu laa ci dëgg-dëgg li mu bëgg wax fii rek mooy léppam buróoram baax la ndax li leen nit dana baax waaye fekk baax gi xisun mi ngi ci makrun mi ngi ci xuruur ma ngi ca moo tamit lam yan wu ni jubluun ma walay sa yan xóoni te duma jublu xuróor ak waru aw makarun wala pexe aw xisun wala kooj waaye yan xóoni te duma jublu alburóot ak baax liñ bëgg wax fii rek benn max rek la moy léppam mbaax la mais xisun amul ci mbaaxam makarun amul ci mbaaxam xuróor amul ci mbaaxam ndax nit ki dana baax ta fekk yëpp mi ngi ci moom te du xam bu waa nag mën na koo xalak <laughs> yàlla ci yàlla musal asaba dàq na rabbi sama borom sa wi ci diraaji borom njayeel ya li xëyri nax wi mu jëm ci fudu sama wàll daan mbir moom muy aji saxal dàkk xaraaji sama pay mu ne ñi nga xam ne sawist diraaji lañ ñoom ñëpp yàlla daf leen di jay te yàkkamtuut leen muy nasaraan si rek yàlla dàq na la ñu jëm ci fudu sama wàll waaw waaye yàlla man de saxal na sama fay de sama fay moom heure bu ne dafay ñëw li ma yàlla di jox waxtu ne day sax waaye ñoom ñëpp suñu borom musal na ma ci ñoom xaraba daw na waxiit iblisu iblis li xëyri saati jëm ci fudu sama jëmm bi tar di bàqin ci dàkkug yàlla muy aji des ji nga xam ne jaada tabe na ma bi la saati maanaam neex-neex yi mooy yu neex yi nee ne sunu borom mi aji des ji te du faatu dàq na iblis mu jëm ci furu sama jëmm maanaam sama jëm moom iblis amatul ci benn kattan moo tax mu ne daw na iblis jëm ci furu sama jëmm mais ci dàquk yàlla muy aji des ji ci dàquk yàlla muy aji des ji nga xam ne moom ci boppam moo ma may tabaarakallahu yu neex yi mooy yu neex yi nga xam ne bokkut ak ceeb yi ñuy lekk wala xeet yi waaye loolu diggante bi ak borom la waaw ah, diggante ak borom mooy yëg-yëg bi mu am ci diggante ak borom mooy yu neex yi waaye ah, bokkut ak yi xeeti ndox yi wala xeeti lekk yi nga xam ne dañ koy lekk ah, bokkut ak loolu kon sëñ Tuubaa sunu borom may na ko loolu yépp ba tey taltasu dana bànneexu mooy dana neexlu yi sama lépp bil imaani ci imaan wal islam ak islam lillaahi ngir jëm yàlla képp sas lislaam yi mbir moom may borom ak jébbal sama lépp yàlla. bu neex ba tey nga ne tal sasu dana bànneexu dana neexlu ku leeti sama lépp bil imaani ci imaan wal islaam ak islaam sas lislaam mbir moom may boroom jébbal sama lépp li laay ñeel yàlla. imaan maanaam imaan gi nekk ci man gëm yàlla gi nekk ci man léegi dafa mujj nekk bànneex ci man ma di ci bànneexu islaam gi nekk ci man mooy jël gi ma jël sama lépp jébbal ko yàlla jël sama lépp jox yàlla dafa mujj nag nekk bànneex bu may bànneexoo kon gis nga ko sëñ Tuba mi ngi lay jàngal fii ne nit ki dana gëm yàlla ba dafay mujj nekk bànneex ci moom boo xam ne moo koy gënal bànneexu àddina yëpp nit ki dana jébbal léppam yàlla ba mujj nag léppam rek dafay bànneexu ci jël gim jël léppam jox yàlla gis nga ko moo tax mu ne taltasu danaa neexlu neexlu mooy bànneexu kulliyati sama lépp bil imaani ci gëm gi ma gëm yàlla wal islaami ak jébal gi ma ko jébal sama lépp sas lislaam mbir moom mooy borom womatu sama lépp li laay ñeel yàlla ah, sama lépp jël naa ko jox yàlla waaye nag sama lépp lépp lu bokk ci man rek dafay bànneexu ci imaan ga ak islaam ga bariyantu seet na wi ci min kufrin ci weddi yàlla wa min fusuqin ak ci génn topp wa sirkin ak bépp bokkaat fastanaara leer na suuxi sama marché mu ne ah su fekkoon ne damaa nekk ci marché boo xam ne damay commerce mu ne bi ma setee ci weddi yàlla seet ci génn topp seet ci bokkaale ci la sama marché neex li koy wolof di waxe mooy marché bu neex kon sëñ Tuubaa nee na sa marché dëgg balaay neex faaw nga mucc ci ñett yi weddi yàlla génn topp bokkale ndax dafa bokk ci bàkkaar yi gën a rëy weddi yàlla génn topp bokkaale mu ne man nag sama marché leer na mooy marché bu neex rek ataaniya dikkal na ma al imaanu gëm yàlla wal islaamu ak islaam wa ahsanul ihsaani ak gën kaa rafet ci ak rafetal ak tasuuf laa alaama ci deetub yaddaange di ma fekk ci yii mu ne lu ñuy tuddee imaan gëm yàlla gu wóor ca na ko yàlla bëggee islaam jébal sa lépp yàlla ihsaan ga ca gën a rafet tasuuf muy xaqiqa mu ne yëpp dikkal na ma dafa bëgg wax na rek ni yàlla santaane ni yàlla bëggee jullit bi mu gëmee ko ko ak jël léppam jox ko ko ak di rafetal def te yàlla tax lépp mi ngi ci man dikkal na ma ndax yi kenn ku ne nekkutoon ci yow mais nag man nga mën naa nekk ci yow ba dikkal la mën nga ciy góorgóorlu ba lépp dikkal la iman gi iman day doole ko islam di doole ko di doole ko mais ni ñuy doole ko noonu la ñuy wàññee ko mi ngi aju rek ci pas-pasu nit ki moo tax sëñ bi ne yii yëpp dikkal nañ ma kon nga déggee ci ne nekkutoon ci moom mais da koo dikkal lu tax mooy daf cee nekkoon kon loo nekk rek tabaarakallahu yàlla di la ko yokkal di ko gën di dollil ba defal la ci lu foox sa njorto waaye loo nekkul itam safaan bi kasaalika yàlla ni ci musal kon ataani dikkal na ma al imaanu imaan wal islaamu ak islaam wa ahsanul ihsaani ak gën kaa rafet ci ak tasuuf laa ulaamu te déetug ya daange di ci am max naa yàlla duma yedd ci imaan gi ak islaam gi ak ihsaan gi benn bu ci nekk yàlla duma ci yedd ma ko waaw nga xam ne ndax na ko yàlla bëggee rek benn bu ci ne loolee dikkal na ma ni yàlla bëggee imaan gi mi ngi ci man ni yàlla bëggee islam gi mi ngi ci man ni yàlla bëggee ihsan gi mi ngi ci man moo tax mu ne laa ulaamu buñ ne rek mooy fi'lu maa yulaamuhu lii mooy loo xam dañ ko yedd buñ ne allaama fulaanun mooy ataa bi maa yulaamu dafa def luñ ko yeddee moo tax borom bi subhaanahu wa taala wax ne rubba laa'imin muliimun dégg nga faltaqa faltaqamul kon ka jën wa war noon muy yoonu moom moo def luñ ko yeddee Ah, mu limun mooy ko xam ne dafa dikkee luñ ko yeddee moo njëkk a def luñ ko yeddee lu tax ñu yedd ko dégg nga boo defoon loo xam ne tey dañ la ciy teg daan kon yow yaa ko def moo tax ñu teg la daan loolu la ñuy wax mu lim moo tax suñu tuwaa nee man imaan gi islam gi insaan gi laa ulaamu maanaam ak yeddaange du mu ci dikkee waaw ah, mukk rabion tonoxu naa fii ci sama commerce ribhan bénéfice boo xam ne yëfoo kawe na wakaana na allahu yàlla lii alxalifatu kay xalifa ba arafiq tey àndaale ba nee na nag sama commerce ndax commerce gi gën mooy nga fexe ba sa imaan ak islaam ak ihsaan yëpp jag mu ne su fekkoon loolu mooy commerce gi nag te ak yeddaangi du mu ci du mu ci fekk mukk mu ne nag kon nag mën na leen bénéfice naa ci sama commerçant bi sama yaxantu bi daal bénéfice naa bénéfice goo xam ne bu xaalis kenn xamut ñaata milliard la <laughs> ripaan yëfu mooy bénéfice boo xam ne kenn xamut ñaata la mu ne yàlla mi nga xam ne mooy sama xalifa fu ma mën a nekk moo fay wuti ak fu ma nekkut mooy sama àndoor fu ma nekk mi nga ànd ak man fu ma nekkut mi ngi fa ànd man ak fu ma nekk yëpp nee na yàlla ma waxtu ne may nekkal Sëñ Tuubaa yàlla mooy xalifa mooy rafiqam dégg nga kitaabati samay mbind kaba katabati toroxal na alkata im mbooloom nasaraan ya wasan saxaat dàq nañ man koo xamee man képp koo xam ne laa yuraa diisu ko gis bi taa muy aji tuub mu ne samay mbind mboolem mbooloom nasaraan sépp sama mbind moo leen këpp toroxal leen dégg nga ñoom ñëpp ci yem nag kenn ku ne ci ñoom sama mbind moo toroxal kon mbind mi lu mat a fonk la soo bëggee toroxal say noon jàppal mbindam sëñ Tuubaa mi soo bëggee say noon dëkk ci mer dëkk ci ak toroxtaange ta yow doo ko yëg sax te ñom ñëpp ña nga ca toroxtaanga te mbind mi di ko jàng kitaabati kattabati kattabati la wax <laughs> nga xam ne kattabati la wax nga xam ne ñoom ñëpp li leen di toroxal mooy xasida yi waaw te képp koo xam ne ba tey ngoy nga ci xasida yi jàpp nga ci xasida yi foog nga xasida yi rek lay demee nag waaw noonu rek lay demee amul sikk sàkk kon yàlla na yàlla doole fayal Serigne Touba wala boog ñi bañ a def comme li xasida gi def nii maanaam ak njuumte kattabati moom mbind lay mën firi. waaw moom bind lay mën a firi kataib nag moom suñ ko waxee rek ci luxatul arabiya jam xool ci katiba katiba nag mooy xitaatu rek minal jay si maanaam mbooloo mu bari lañ koy wax maanaam lël bu rëy ab dog nga génne ci ab dog ab kuréel ñoom la ñuy wax buñ ne katibatu minal jay si mooy firqatu minal jay si ab kuréel gu gu bokk ci ab lël masala nga ne dëkk bii kat ñi génne ci ab kuréel fekk génnewuñ ci waa dëkk bi yëpp waaye ab kuréel rek ci waa dëkk bi dañ leen di wax kataib kon kabatati moom mëntu firi lu dul bind maanaam katabati bokkut ak kabatati kon xëy na ki doon bind li mën naa jum waaye kitaabati kabba nga xam ne baagi mooy jiitu taagi waaye boo ne nga xam ne taagi dafay jiitu baagi rek dafay amaan meneen firim bind rek lay mën a firi te fii moom sëñ bi daf cee namu rek kabbatati nga xam ne kubbitoo kama kubbita gi ngay jàng ci alquran ci sóoratu al mujadala qad samiha moo tax ma ne kitaabati sama mbind kabbatati fii nag kattabati waaye kabbatati mooy toroxal na nërmel na xalag na alkata im mbooloom nasaraan sax wasan saa te dàq nañ ñoom bind mi man képp koo xam ne laa yuraa gisee fut ko euh, dégg nga mukk bi muy aji tuub koo xam ne doo tuub ba pencam yàlla ci texay di ci ngay dee mu ne suma mbind ñoo lay dàq waaw suma mbind ci boppam ñoo lay dàq suma mbind ci boppam ni muy toroxalee mbooloo mi ma yóbbu ca géej ga noonu la may dàqalee képp koo xam ne dafa ñëw ci man ne dafay tuqoo man te du tuub ah, te te nanguut a tuub ah, du ànd ak koo xam ne moom nangoo tuub moom yàlla yàlla musal ci kooku ak loolu sax. mu tekki wasaltu lillahi almumalikil muluk fi daqilil askari waxdatul malik mu ne wasaltu mooy jox naa lillahi ñeel yàlla almumaliki moom muy aji moom almuluk mboolem xeeti buur yi jox naa ko fii dàqilil xaskari ci biir tàbbiwaayu armée ba waxdatul malik ak kennalam ak wéetam moom muy aji moom lépp mu ne bi ma tàbbee ca biir armée ba muy nasaran su ma yóbbuwoon ca géej ga jox naa yàlla moom yi nga xam ne mooy kii moom mboolem xeeti buur yëpp ak wàllam maanaam taw gi dox suñu diggante mooy wéetal gi ma ko waroon wéetal ndax ku ne xam na ne nekk ci biir nasaraan dafa wéetal yàlla loolu jafe na nekk ci ñoo xam ne moo yàlla rek lañ xam te ci lañ fas kii ni dee loolu jafe na nit man koo def ci biir mbooloo mu mel noonu. moo tax dafa bëgg wax ne bi ma nekkee ci biir nasaraan ya jox naa ko cëram ba mat sëkk muy ci wéetal gi ma ko war a wéet wéetal maanaam kennal gi ma ko war a kennal jox ko xaqam nee na bi ma nekkee ci nasaraan yi jox naa ko ko. al wahdatu mooy koo xam ne infarada bi nafsi moom jëmmam jëmmam da caa wéet moom. mooy koo xam ne munfarid la laa yusana wala yujmaa yàlla kenn du ko tasniya mbaa ñi di ko jamxo kooku sunu borom bi subhaanahu wa taala nga xam ne moom moom cundung buñ ne wax du ar rajulu suñ ko waxee ci sax mooy infarada bi nafsi dégg nga waaye ci yàlla mooy koo xam ne moom wéet na ci jëmm wéet ci melo wéet ci jëf anam boo ko mën a jël rek yàlla da caa wéet anam boo ko mën a jël rek sunu borom da ngay fekk ci moom subhaanahu wa taala mu wéet ci. waaw moo tax sëñ bi nee na bi ma nekkee ci biir armée ba daal ci gàttal nga xam ne nasaraan yi rek ñoo may escorté jox naa fa cërëb yàlla yàlla yàlla daal moom mi moom lépp jox naa ko fa cërëm waaw wasaltu kon jox naa lillaahi ñeel yàlla al mumaliki moom muy aji moom al muluk mboolem buur yi fii daqilil xaskiri ci biir tabbi waaye armée ba bi ma tabbi ci biir armée ba daal man ak nasaraan yi rek ñu nekk fa man rek ma gëm fa yàlla foofee jox naa ko fa waxdatul malik ak wéetam ak kennam moom mi aji moom lépp waaw ah, moo leen buur yi moo leen moom almalik mooy aji moom lépp comme moom moom lépp nag dafa wéet moo tax nag bi ma nekkee ci biir armée ba nasaraan ya bi ma tàbbi ci seen biir wéetam googee dama ko ko jox ba mat sëkk donte ñoom nanguñ ko ko jox <laughs> sëñ Tuubaa moo kéemaane sëñ Tuubaa mooy jëmm joo xam ne lu yàlla moom yëpp da ko ko jox bal da ngay sax li moom daawut sax lu lu nit moom bindeef moom sax daawut ko jël moom léppam da ko da koo jëloon rek doylu ci boromam jox yàlla la moom gis nga li nga xam ne mbindeef ko moom du ko jël jox ko yàlla lu yàlla moom du ko jël jox ko mbindeef te moom li ko yàlla séddoon sax da koo nangoon a bokk ak nit ñi la nit ñi amoon yëpp mu bàyyi leen ko ya mox ni yéen bi këye di xan xaati suñ ko mostu laaj dara ndax yàlla ko doyluloo ci boppam lu muy soxla yàlla ko koy jox mais du laaj kenn na ko indil nangam wala joxal nangam deret kon yàlla na ko yàlla fayal